kàddu yi ëpp na ko doole coow sénégalais yi gis na ne kenn àndu ci ak moom mm. à part ces soi-disant imam yooyu nga xamante nii ñu ngi leen doon xaar ci vraiment mm. jour bi mu ne l'homosexualité dañ ko dañ ko toléré Sénégal mm. ñu jógoon te jóguñ à part ñooñu gis na ne tout le monde ñëpp tout le monde s'est indigné ci kàddu yooyu mu yëkkati pour na créer Euh, divertir sénégalais yi ñu faté wax nous ñu faté wax ñu euh, euh, sur le port de de du voile. Mhm. mu yëkëti cadeau contre contre c'est-à-dire ay effet d'annonce def day def de telle sorte que nit ñi dinañ mëna cest divertir nit ñi. Mhm. orienter leen ci benen débat mu un pays en ruine dina melni Sénégal <laughs> ñu waxante dëgg oh, oh, oh, ma jaaxal na bàyyi manipulation yi saa manipuler na ba ñëw gis nga euh, Amath dañoo ñëw fekk un un un pays boo xam ne y a un régime boo xam tout n'est pas parfait bien sûr kenn mënul wax ne ñi fi nekkoon euh, voilà euh, tout était rose. Hmm. non am un programme bu ñu tegoon di ko déroulé. xam nañ ñoom un bon programme parce que moom la ñuy actuellement moom la déroulé xam nañ ne réew mi mu ngi woon ci euh, vers euh, l'émergence mhm. mu ngi doon dox suñ ñëwee waxoon Sénégal yi li ñu leen wax ni ñi ay cuune lañ mënuñ dara xamuñ dara ñu ngi sàcc seen xaalis ñu ngi def li ñu ngi def lële buñ ñëwee ba toog réalité pouvoir bi nag rattrapé leen voilà pourquoi aujourd'hui nous indi yenn discours yi mu victimiser comme nous doon victimiser Nous opposition le régime précédent Nous bëgg nam daan diaboliser le régime précédent Nous nit nous nous indi résultat c'est parce que un pays en ruine lañ fi c'est pas vrai un pays en ruine. Euh, euh, nous sommes euh, euh, sur liquide le Sénégal est liquide loolu croissance gis tout est positif croissance inflation aussi par rapport à pays hein, les financements directs étrangers yi liñu ci Sénégal amul benn ñu bokk ci ñi nga xam ñoo investissement ay étranger mm. réew mu taxawul ay étranger du fa ñëw di investir loolu mënul nekk mais boo xoolee aussi train de vie bi fait ñi fi nekk réew moo xamante ne nii dafa nekk en ruine président bi dina am euh, euh, avion présidentiel di am kérosène di dem fu ko neex guddeeg bëccëg mu ngi voyager premier ministre premier ministre mm-hmm. premier ministre dëkku hôtel yore convoi boo xamante ni bu la rombé am nga euh, nga xamné ñi ni, nii ñu ngi mais est-ce que dinañ mën di fay salaire boobu ba légui est-ce que dinañ mën lepp luy euh, infrastructure di fonctionner comme il le faut est-ce que dinañ mën di am carburant est-ce que dinañ mën même bu dund gi chéré sax est-ce que dinañ mën di ko am réew mu nekk en ruine yooyu yépp du fa am mm-hmm. est-ce que kon dinañ mën ñoom dem di outil

taxawaay bu cuune bi nga xam ne nii mm. moom lañ taxaw saa à incapacité bi nga xam ne nii notoire bi nga xamante nii kenn discuté tu ci xam nañ ne ce régime mm. mënuñ mënuñ te indiwuluñ ñu lenn lu bees rupture yi ñu doon wax defuñ ci dara mm. pour justifier loolu moo tax ñuy victimisé ou mhm. maintenant du côté qui a affaire ou un pays en ruine Le mhm. fait ba muy utiliser ruine mhm. mais l'homme de bëgg qui est ci xelu sénégalais je connais le que ne dëkk bi neexul L'on loolu nag mënuñu ko pourquoi parce que mon moo ne woon am solution am na projet am na loo xam ne bu qui da ciy régler problème yi su bateau ne ba toog na jublu ci te bàyyi euh, c'est-à-dire les discours populistes qui ont été ah Sénégal gii ñu nekk Sénégal ni Sénégal ni Sénégal problème par rapport au régime bi mhm. le président deux mois la may salaire difficulté parce que on se souvient très bien président Macky Sall dafa dem automatiquement Bim mu jëlee aussitôt dafa dem France pour outil sax fond pour mener a téyewaat li nga xamante ni moom mooy économie. Mm-hmm. daal di dissoudre li nga xam ne Sénat bi ne buñ demee ba tal ko dinañ mën tegaat beneen institution kooku moo doon bo bi ñu wax def allusion ci HCCT mais moom ñoom dëkk boo xam ne dafa nekk en ruine lan lañ def wàññi les dépenses de l'État loolu mooy laaj bi eh, beneen bi euh,